ilayka yaa xayral bariyati salaam xadimika alladi kafaytahu lmalaam ilayka yaa xayral bariyati salaam xadimika alladi kafaytahu lmalaam salla alayka abadan ma salaam filaali wala saabi rabbuna salaam husta maqaaman duunahu kullu maqaam yaa nuura kulli aabidin saama waqaam anta alladi axrajana min alzalam bika li nuuri man habaaka bilkalaam basharaka aljamilu ya xayra imam bima nawaytu fiika saayan za tamam anta annabiyu wa rasulu walhumam bika inqiyaadu saalihiina bizimam laka ladaa rabbil wara kullu maram laka bihi ya sayyidi asna ihtiram jaadalana baaqin taxaala an manam bi kafaanta sayyidi xayrul anam nawaytu shukrahu halayka kulla ham wa kulla shahrin wal kitaabu lii diam nawaytu shukrahu halayka bi xilam وغيرها يا ذا جوامه الكلام هديتي خذ كرما بلا انسرام يا خائدا لي من إلهك المرام tubtu li rabbi zairal bilan nizam laka wa qablahu habawta bi nizam bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñi ngi leen di nuyoo fii ci kër Serigne tubaa gi jàkkaarloog jumaa ju mag ji di jiital ci nuyoo bi ak cheikh Mouhamadul Mountakha ibnu cheikh Mouhamadul Bachir xalif général des di ziyaare itam sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Chouaïbou Mbàkke mi nga xam ne teew na ci jataay bi ànd ak sëriñ Youssou Diop jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah sëriñ Cheikh Abdoulatif Mbàkke ak sëriñ Saaliwu Mbàkke ak lu takku ci bokki taalibe yi ak ñi nga xamante ni ay jëwriñ lañu jublu gi nag mooy ndigal loo xam ne mu ngi bàyyikoo ci xalif général de mourides Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbàkke muy bisub xasida bu mag a mag a mag boo xam ne fas nañu yéene amal ko ci dëkk bu tedd bii di Touba bisub àllarba war doon benn wala ñaari fan ci weeru muharam wii ñu jublu atum junneeg ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ci gàddaay gi di dëppoog 11 ci weeru août atum 2021 ni ñu nosee liggéey bi nag ak ndigal li dinañu bàyyi kilifa yi ñu jottali ko dinañ jox sëriñ Cheikh mu sëriñ Abdou Latif mu ubbi kàddu gi bu noppee sëriñ Youssou Diop jëwriñu daara yi isbu tarxiya dana indi leeral yi ak ndigal li ni ko Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké digle bu ñu noppee dinañ jox sëriñ Moustapha mu sëriñ Mahmadan mook sëriñ Aline Diop dinañ wax ci turu sëriñ Hamsatu Mbacké moom sëriñ bu ak mbooleem ahlu xasida bu ñu noppee jox sëriñ Abdoulahat Bousso mi nga xam ne moo fi teewal daayira Muxaddamatul Xidma ndax liggéey bi ci jumaa ji lay tàmbalee ak li ko wër mu joxe ci ay kàddu su ko defee woote bi nag dina jëm ci mbooleem bokki taalibe ak mboolem kuy yëngu ci xasida ak kuy jàng xasida ku koy durus ak ku koy yëkkati ci lu wér fu mu fi mën a nekk ci biir rëdd réew mi na xam ni ndigal li Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké joxe tàbbi na kon ñu jox Serigne Cheikh mu Serigne Abdou mu ubbi kàddu yi nga xamante ni moo jëm ci ndigal li bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ngi nuyoo noo ngi nuyu bokki taalibe yëpp ak fu ñu mën a nekk waaye nuy tàmbalee nuyoo bi fii ci jataay bii di ko tàmbalee nag suñ jëwriñ ji nu toogal monsieur Hamza ñu koy siyaare di ko nuyu di ko jottali nuyoo bi Cheikh Mamadou Mountakha jàlle nuyoo bi ci sëriñ Youssou Diop mii jëwriñ Hizbut Tarqiyyah te tey nuyu bokki taalibe yi fi toog yëpp nag di jàllale nuyoo bi nag fu taalibe mën a nekk waaye rawaate na boo ñu dëkk ci dëkkub Touba bii nag dëkkub Serigne Touba bii mun ñu am tawfeexe dëkk ak Serigne Touba ni ma koy waxatu nekk ñu am tawfeexe dëkk ak Serigne Touba ci dëkkam bi waxtu bu nekk danoo war di yëg tawfeex jooju di ko sant di ko bégee di ko dund kon ginnaaw nga xam ne Cheikh Maodo Mountakha moom yëg sëñ bi ak dund sëñ bi waxtu wu nekk fa mu ca àgg kenn mënu ko seen yëngoom yëpp dalam yëpp Sëriñ Tuubaa rek la te noonu ko Cheikh Abdoulaye waxe woon ne li Sëriñ Tuubaa wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu la taalib yëpp war a wax xayaat yi moomaat yi xarakaat yi wa sakanaat yi ma Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu la Sëriñ Tuubaa wax yonent bi sallallahu sëñ Abdou Lahad waxoon ne taalibe yëpp noonu la ñu war a ànd ak Serigne Touba noonu ñu war a yéegi Serigne bi waaye loolu de Serigne Mountakha àgg na ci foo xam ne ni mu doone Serigne Touba ni la ci rawee taalibe yëpp koo xam xam ne yëngoom yëpp dalam yëpp xalaatam yëpp Serigne bi la bu wéetee ma ngay xalaat ci Serigne bi bu wéttali ko ma ngay wax ak di jëf loo xam ne dañ cay royee nu ñuy ànd ak bi. ak ni ñuy dundele sunu taalibe loolu nag tax na Seex taxa waxtu wu nekk la muy xalaat ak nas lépp nu taalibe mën a dunde sëriñ bi mën a yëg sëriñ bi mën a bañ a am jenn yitte ju sëriñ bi nga xam ne suñu yëngu bépp day dellu ci sëriñ bi sëriñ Muntaxa loolu moo di doxinam loolu nag alhamdulillahi rabbil alamin wéetu ca donte fa mu àgg kenn àggu fa am na ci ay àndandoo nag yoo xam ne saa su geesoo gis leen ñuy bokk di dund ak moom la muy dund ci sëriñ bi loolee nag moom itam da koy wéttali mu di ko bànneexuloo bànneex boo xam ne day woyofal ci moom yoon wa ak doxin wa delluwaat ci bayit xuqa woowee wala xuqa waxoon ci yoon wi ya nga xam ne mënu caa ñàkk ci ku bëgg a dem muy wax ba naa waruf xatun waaye ixwaanun lawum himam himamun loolee sëriñ Muntaxa da koy yëg ci àndandoom yu baax yi waxtu wu nekk ci liggéey bi moo tax it fu mu fi mën a toll la muy nas di ko xalaat dana ay jëwriñ yoo xam ne loole ñoom la koy àndal ñoom lay àndal nas ba ñoom lay àndal doxin ba doonte du tàggoo ñoom benn waxtu itam day am diggante boo xam ne liggéey ba fa muy toll dana am jëwriñ ko doy ñoo xam ne ci loxoy jëwriñ yooya la koy teg ànd ak ñoom liggéey booba mu mel ne yëg-yëgam yooyu yooyu ci sëriñ bi nag ak dund gi sëriñ bi waxtu wu nekk dana dana xamaat ci xam xamu baatinam ne fii la liggéey bi toll fii la jamono toll lii rek moo mën a sore nit ñi soowee nit ñi ndax loolee bi waxoon rek yaral xafaaya bi aynil xalbi zahiratan kama shahidu ma taata lakki naati sëriñ bu matu sëriñ day nekk foofu kon moom itam waxtu bu ne day gis mbir yi xam mbir yi fi mu toll it mu xam ne mbir mi fii mu toll lii rek moo mën a sooy adduna lii rek moo mën a defar mbir mi lii rek lii rek moo mën a tax jàmm am ci foofu tolluwaayam yooyu a gis-gisam yooyu nag ci la gisee ni fan yii daa bëgg a taxaw bisub xasida boo xam ne ca bisub xasida boobu ci la ay yëpp di jàqoo ci la jafe-jafe yëpp di jeexe ci la xéewal yëpp di tàbbee ci la yiw yëpp di tàbbee ci la jàmm di amee liñ bëgg lépp ci la ñuy amee mu gis ne kon bis boobu rek ci lañ ko bëgg a delloo te loolu itam noon ñi nga xam ne suñuy xalaat dafa gàtt sax xam nañ ne sëriñ bi liggéey bépp ci xasida yi la ko liggéey kon luñ bëgg noon murid képp luñ bëgg mën noon ko amee ci xasida yi waxuma moom mii sëriñ Tuubaa nag kon lam gis ci xasida ba di ca daw jëm ak di ca soññee xam na ne lanu bëgg lépp ci xasida yi lan koy mën a amee lan ragal lépp ci xasida yi lañ ci mën a muccee loolu moo tax mu xalaat bisu xasida bi defe naa buñ ne xasida nag buñ xoolee jataay bi rek xalaat da xam ne kon jataayu xasida ngi nii jataay bu ab jataay bu ko sëriñ am du jiite sëriñ Youssou Diop toog ne ak isbu tarxiya xam ne loolu mooy xasida nag loolu mooy ñii dund xasida te di ko dundal te di ko dundule di dund xa le xasida mooy di ko ànd ak murid yi nu di ko dund dund goo xam ne ñëpp dañ ci am duñ yëg-yëg ci suñu xol ak suñu bëgg-bëgg sëriñ Muntaxa xalaat nag gis génne xëccal nu njariñ dàqal nu lor tax mu taxawal bis boobu mu bëgg tudd bisu xasida bis boobu nag dafa woo sëñ Yuusu Jóob mii ne ko dama lay liggéeyloo liggéey bi ci xasida la jëm waaye dama lay yabal nga dem ci sëñ Amsatu liggéey boobee sëñ Amsatu ne kilifa gi waaye na ko taxaw bisub xasida boo xam ne danañ ci dund xasida dundal ci xasida loo xam ne mosu fi am te moom ni mu xamee ne lépp lu mu songal sëñ bi dana daan loola lépp lu mu yóotul sëñ bi dana jot ca loola moo tax mu fabee ko famille boo xam ne ñëpp yëgandoo ko rek yëkkatee ndoo ko rek moo tax famille woo dem te xam nañ ne itam bu ko santaane joxe ci ndigal jiital ci kilifa yi na mu ko bëggee ne lañ koy defee na mu ko bëggee nag mooy fu murit taalibe bi maa nekk ci àdduna nga def ko sa bisub xasida dundal xasida fa nga nekk waaye nag ci dëkk bi ak ñi mën a jege dëkk bi ak ñi mën a ñëw ci dëkk bi moom daa bëgg ñu dundale ko ci biir Touba loolu tax mu waxoon suñu yuusu ne ko ci wàccaay bu gisee suñu amsatu bañ waxtaan ba noppi nun nag nan jàpp suñ kam kàttan ca wàccaay ya mooy barab yi niñ koy nase ñi daan ànd liggéey bi te li ci daan jiitu mooy muxaddamatul xidma ci biir jumaa ji ndax sëñ bi da ne jumaa ji ak li ko wër nañ na fees dell ba ba ngay dem daaru nam kenn am foo toog kon loolu wàccaay la woo xam ne dañ koy waajale yëgee ko ni ko sëñ bi yëgee rek ñëpp jàppandoo ko rek yëkkateendoo ko mu mën a jóg loolu nag mooy fu taali bi mën a nekk def ci xolam ne ci ñëwal kenn wutu koo jiitu ci ñiy dundal bis boobu ak nu ko waay mën rek ñii mën a yor xasida durus ñii ay kuréel yi jàng ñu mën a def ay bernde ay xéewal andi ko ñëpp kenn ku ne na yëg ne na yëg ci xol-xolam ne bis bii ci la defaroom nekk ci la mën a mucc ci la ragal lépp bu kenn ku ne jógee noonu rek li ci sëñ bëgg dañ ko am te li ci sëñ bëgg bu ko amee noonu li nu bëgg daanu ko am kon nag sëñ bi nee na ñëpp jóg na ñëpp fabu na ñëpp génn njàng mi dafa waxoon ne buñ ñu ko yemale fenn cëpp nañu fa jàng rawatina dëkk bi bu dee dëkk bi itam bare bi jàngukaay yëpp bare bi dajowukaay yëpp nañ fa jàngee tàmbale na ko ci mbaarum daar xudus mii di la alhamd waa waa wilaya ña nga fa di waaj war a taxaw liggéey foofu buñ jógee ci jumaa ji laa wax ba noppi àgg na daaru nam gii ña nga fay waajal ña nga fa sëñ yuusu ña nga fay def ab baas ay baas yu mag mbaar yaa nga fa noonu lañ koy waajale ba daaru tansil ba fu ay mbooloo mën a daje ci kaw nag ñi mën a ñëw jumaa ji ñëpp ñëw ba noppi ndax kër yi wër jumaa ji itam dañ leen di waajal ni kër sëñ Abdoulaye gii kër sëñ Mouhamad kër sëñ Fallou ba baar baar maa nga ci bunt kër ba te biir kër gaak lépp léegi lañ fa jógee dañuy noonu lañ koy defee kër sëñ Abdoulahi noonu lañ koy defee kër sëñ sëñ Saliou noonu lañ defee kër sëñ Mortala dañ koy defee kër sëñ Abdou Khadir dañ koy defee kër sëñ Ndaam Atta kër yi wër jumaa ji kër yi sëñ Tuubaa dañ fay dugg ci biir waajal ko fa ña fay jàng dafa jàng ña leen di berndeel di leen berndeel fekk jumaa ji fees ba dell ba noppi ñu door dem daarul xudóos dem daarul beneen fi ñu war a àgg ñu àgg kon nag loolu li ci am solo mooy fu taali bi mën a nekk jàpp ne bis bi yaa tax sëñ Muntaxa di ko woote jàpp ne yow la sëñ Muntaxa bëgg a dimbale tax muy woote bis bi te ndimbal lañu fekk loxol borom kon kenn ku ne fam toll na ni waaje ki mën a jàng genn xasida ba kenn ma ke mën a jàng téeméeri xasida ke mën a jàng ñetti junni yi way ci bis beeg lu ne la ci waaye man lu ne ko def ku mën a ñëw itam nga ñëw ba wisi ba noppi ñu defee ko fii foofu xam ne mbooloo dañ fa daje ña xam ne foofu mën nañ mbooloo te mën nañ faa jàngee mën nañ leen faa berdeele nañ jàng loolu lépp sëñ Yuusu danañ ci egsi da te waajtaay yi mi ngi ñëw dañ koy nas ba nga xam ne foofu mbooloo nekk danañ ko xam nañ leen di digale ñu jàngee nii danañ ko xam jàngeen ba na muy tuddee lépp danañ ko digle teg ko ci yoon woo xam ne ñëpp a koy xam nañ ko war a bernde na war demee dañ ko teg ci yoon wér woo xam ne ña war a toppatoo bernde ña ko war a togg buñ ko war a andi ñañ ko war a yóbbul lépp lu ñuy nas la di ci am solo daal mooy yéeg-yéeg bi rek yéeg-yéeg bi suñ mu tax daal wàllu na ko nuyu itam nan fa seenam suñ yéeg-yéegu bopp kenn ku ne daal nga jàpp na si yëfa jàpp na ci mbir mii ci ci la ci la sëñ bi bëgg a jaarale sax ci la sëñ bi bëgg a jaarale sax mucc nga nga fabee ko noona yëkkatee yëkkatee ko noona boobaa bu ñu ko defee baat bi li ma waxoon rek li sëñ bi nas xalaat ko ci bëgg ko ci bu ko amee nun liñ bëgg lépp dañ koy yam te la kon nako ko bi bëgg nañ fexe ba defe ko noonu rek te loolu nag yëg-yëg rek la yitte rek la yitte rek sëñ mu taxaa da koy wax dañ ne mbir lu mu rëy rëy bu ñu ko nasee teg ci yitte luñ ci bëgg mën na ci am waaye nas ak yitte nag moo mënta ñàkk ci mbir lii rek moo laaj nas ak yitte nag kon nag maa ngi soññ sama bokki taalibe yi noonu ñii nga xam ne noonu noo war a yor liggéey bi noo war a laxasaay yor liggéey bi nan laxasaay fas yéene taxaw liggéey bi ak kenn ku ne na nga jàpp ne nag yow yaa war a taxaw liggéey bi ci bopp man nag jàpp naa ne maa war doon dawal sëñ Amsatu maa war doon dawal sëñ Yuusu maa war doon surga bi war doon jëwriñ ji buñ ma noppal buñ ma dañ ma caw may daw rek loolu ñëpp nag ci loolu sëñ bi damaa a ma lu may def waru damay daw rek warutuma taxaw waruma geesu daw dem rek ñaan ànd ak murid yëpp nu dem nag ñu topp ci seen ginnaaw nag moom daal li ma waxoon démb li ci sëñ bëgg na ko ci am li siñ bi bëgg nu am ko nii tam nan ko ci am lépp xaj na yàlla ñu ko defal jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulahi ah, xanaa dog ngant rek ci kàddu yi ci sa kanami kilifa waaye lenn rek lay dërloo mooy baatum ndigal kon ñu ngi sant sëriñ bi nga xam ne moo nuy liggéeyloo te it defal nu taw feex boole ñoog ñoo xamante ne ànd ak ñoom ngóora du ko maye waaye ndimbalal yàlla rek moo mën a maye ñu boole la waar ne la jógal dem ànd ko ñu tedd ñii nga xam ne kenn ku ci ne fi la sëriñ bi teg ku ci xam dara di nga xam ne am nga loo xamante ne sa ngóora mayu la ko kon takkaat sa laxasaay rek te uh, xam ne liggéeyal sëñ Tuubaa rek la dese sëriñ bi defal na la loo xam ne jomb na la ndax bëgg liggéeyal sëriñ bi baax na waaye sëriñ bi liggéey la moo ko gën euh, ñuy sant bu baax ginnaaw bu ñu ziyaaree te ñaanal sunu sang bu tedd bi Cheikh Mouhamadul Mountakha ñaan mu yàgg fi loolu te wér di ñaanal euh, euh, rakki boppam yu tedd yii ak tamit bokki boppam yu tedd yii nga xamante ne dañoo doon ay bokk ba noppi waaye laxasaayu ba nga xam ne dong bu góorgóorluwul ah dinañ jër cëru doon sa kilifa ba noppi it dàq laa tarbiyewu loolu nag moo tax ku mel noonu boo àndeek moom sago dootu la yomb eh, Cheikh Mamadou Mountakha moom eh, li mu nu bëggal te bëggal ko mbokki jullit yëpp bëggal ko mbokki taalibe yëpp nan xam ne li gën a wóor mooy sunu pas-pas ak sunu yéene ak sunu ñaan nañ ko tàbbal ci biir la muy yéene ak la muy fas ak la muy ñaan ndax defe naa sëñ Cheikh eh, moom sëñ Abdou Latif kàddu yi mu wax matale na damay jaaraat rek ci ay baat yoo xam ne sëriñ bi dafa ma ko wax ma dégg ko bëgg nu gën ci jariñu ndax dafa ne weeru muharram yi day muy weer wi nga xam ne mooy weeru tamxarit mu jël bésub àllarba di euh, war doon benn fan wala ñaari fan waaye àllarba ji mu jël kon day tombe ak mercredi àllarba kon 11 août 2021 kon fukki fan ak benn yooyu muy tombel dañu xam ne mën naa doon benn pan ci muharam waaye mën naa doon ñaari fan dafa wax ne weeru muharam day day weer woo xamante ne weer wu màgg la te bari njëriñ te sëñ Tuubaa it suñu borom jagleel ko si loo xam ne moom rek moo ko am ku ne xam na ne liggéeyam bi mu liggéeyal suñu borom ak at yi mu def njaareem ba mu tolloo ci waaj di ñëw ku xam dara ci sunu boroom xam nga ne képp ku sunu borom am ci tànneef ñu baax ni ñëpp ñëw nañu xam ne ki gën ci ñu mës a liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam liggéey na liggéey boo xam ne kenn mësu koo def ñu ànd mu ñu ànd ak moom jóge gi muy jóge njaareem ñëw fii ci Touba jund lay la kenn desul ñu baax ñëpp kenn desul sëriñ bi nag bëgg nu nu bokk ci ñoom moo tax tey jii mu bëgg ñu jëriñu ci jóg googu sëriñ bi jóg di ñëw ci fii nga xamante ne mooy Touba diggante njaareem ak Touba ñu war koo gàttandu war koo gunge. gunge googu nag mu gis ne lenn rekk ci yàlla mooy xaside yi ndax sëriñ bi ak màggam lenn rek la mën a ànd ak moom yeeyoo ànd ak moom muy xaside yi ndax nee na xaside yi mooy jëmbi sëriñ bi loolu nag dafa laaj wàccaay wu laaj ak teewlu laaj ak sell mun nañu fu kuréelu xasida ne ak jàngkat boo xam ne la muy jàng wér na sell na boole leen ko ci kon xatalu ko da koo yaatal mu ne ma nag nanga jóg balaa ngaa def dara demal ba ci sëñ xamsatu moom nag lépp lu ñuy def ci xasida moom lañ koy dimbalee loolu moom ba mu ma joxee ndigal loolu ci laa xam sama bopp bu baax xam naa ne kon la ma ci eh, ñor mooy sëriñ bi faw ñu xam ne dañoo war a laxasaayu liggéeyal ko waaye tamit dangay am dalil moom nag ba mu ma booleeg sëñ Moustapha moom sëñ Mahamadan mii itam eh, boobu léegi gëlëmatuma xam naa fi may teg sama tànk di sant bu baax tamit sëñ Alioune Diop mii nga xamante ne ëllu xasida liggéey bi ñu ciy def te di ko def ci xam sëñ Hamsatu mii murit yëpp xam nañ ne liggéey bu mëntoon a ñàkk ci yoon bi la pàggutee fu Tuubaa la ñeneen ñëpp nag ñi nga xam ne sax xëñ na fa ñu nekk ñu ngi yëngu ci xasida yi nañu xam ne ci lañu loolu mooy ndigal li sëriñ bi nañu nag biir jumaa ji ak li ko wër bu mu ci yem nee nañ nee na mbooleem pénc yi nekk ci Touba ña nekk ci pénc yooyee nañuy am foofe te dundal ko foofe ndax loolu mooy tax ñuy bàyyikoo ko ci euh, yeneen gox yi ci biir réew mi bu ñu dikkee kenn ku ci ne war ngaa xam fan ngay dal loolu it ak nos la goo xam ne noo ngi ci liggéey boobu ndax tey mboolem ñu yëngu ca xasida am na nu ñu nosoo ca Ndakaaru am na nu ñu nosoo ca Kees am na nu ñu nasoo ca Saalum am na nu ñu nasoo fu ne loolu fi ñu toll nii ñi ci war a liggéey ñu ngi ciy liggéey ñu ngi koy ànd ak ñoom kon nañ xam ne liggéey bi lépp dina tege ci yoon incha allah xaside yi ñu jàng sëriñ bi dafa bëgg kuréel yi jàng ak jàngkat yi nga xamante ne dañuy rajas ku ci ne la ngay jàng ak sa morom la muy jàng na wuute loolu it mën naa ne ci nos la ndax tàmbali nañ cee liggéey te yaakaar naa ne lépp bu ko tefee bu ñu ko tegee ci yoonu euh, ndigal rek. lépp dina sotti ñuy sant nag bu baax a baax a baax a baax li nga xam ne moom sëriñ bi wax na ko ndax euh, liggéey bu toll noonu ak yaatu gi mu yaatu wax nañoo xam ne ah barabi jàng xasida yi dina yaatu waaye wàññi it war naa yaatu ndax Tuubaa gépp war nañ ko defee wàññ euh, ndax ginnaaw ni sëñ Cheikh waxee de li muy wane mooy ñun nañu laxasaayu rek wane na jublu nañu wutali sëriñ bi ndax sëriñ bi léppam daf koo jox rek yonente bi sallallahu alayhi ñun suñu lépp ñu war koo jox sëriñ bi loolu mooy mooy liñ ko ameel bor te lott nañ ci sax waaye nañ ci jeex takk rek ngir wane ne suñu ngor mat na suñu jom mën na mat na suñu passé mën na yu bajjilu kulli kullaka al yawma ma ghadin wa in shaa rabbi laa ura dahra daawana yi sañatuñoo noppalu sañatuñoo tàyyi ginnaaw loolu itam waañ yooyu nga xam ne war naa am ci Tuubaa gépp ñoo ngi koy ànd ak seen Cheikh mu ngi ciy jàppale ñoo ngi koy ànd ak suñu bokki taalibe yëpp ngir xool fépp foo xamante ne wàññi mën na fa am bu ñu la limul it yow limal sa bopp te dikk te xam ne fépp foo xamante ne daara Hizbut Tarqiyyah am na fa wala fépp foo xamante ne sëñ Hamsatu mii ndawam a nga fa foo ci dem di nga gindi ko benn liggéey la benn nos bi la loolu kon ñoo ngi koy ñoo koy leeral ñëpp di wax itam ne euh, moom sëriñ bi day ba mu joxee ndigal li rek jël na ab lim ci ay nag yu tolloog arafi Touba nañu fi saasi moom laa koy tàmbalee muy ñaar fukk ak juróom-ñett boole ci ñaar fukki bërigo ceeb ak juróom-ñett euh, bëgg lim bëgg leneen li ci des lépp mu def ko ma yalwaan ko ne ko Mbàkke man de dama damay yalwaan rek ginnaaw da ko digal te te bëgg nañ cee tàbbi dama bëggoon ndugg la ca waraat ak lu ñu ca mën a dolliwaat nga nga nga nga nga tawféexal nu ko mu ci lañu ci la nangu loolu may nu ko waaye bañ ca teewee ci kanamam it man ak sama sang bii di sëñ Xamsatu fa saasa sëriñ bi nee na bis la boo xam ne nag ay téeméeri téeméeri nag sax du tax mu dey ci loolu kon mooy wane ne togg yi moom nañ ko jàppee li àddadin laale xam moom na wóor ne lu mat bis bi moom mënuñu koo am waaye nañ ci jeex takk sëñ Xamsatu nii mii nag wane na yoon nun kon lañ doon joxe danañ ko dugalaat ci biir lii muy lenn dadu du teggin sax ñuy limaat kon dongo fu mu ne dina indiwaat dolli ci lii nun li nu amit dina indiwaat dolli ko ci lii benn joxe rek la sëñ Muntaxa moom ginnaaw moo ne ma sëñ Xamsatu mii lu waaye di def ci xasida moom la koy defal kon loolu rek door naa doy naa tudd kenn du fi tudd keneen ñun lañ dugg ci seen biir ñoom ñu defal ñu add xaltu nafsi yi wa jamii ahli fi jay bi afdalil wara zulfat li kon lii daal laa ci doon dolli di wax ne ñu ngi sant Cheikh Mamadou Bachir mi nga xam ne moo yor kàddu sëriñ bi ndax euh, bis bu mel nii ku ne xam ne ne mbooloo dina bari dina dinay demee noo xamante ne ku ko saytuwul boo moytul tumuranke mën naa am moo tax kon moom ba mu xamee ne lii nga xamante ne Cheikh Hamza mi ngi koy def di ko defal bokk yëpp mi ngi koy féete moom it am na wet goo xam ne feelu na ko ci fa saasa la jël ay matuwaay yoo xam ne ñu yor wàllu wér-gu-yaram muy préfet muy yor wàllu kaaraange amu ci kenn koo xam ne woowu la jox la ndigal ngir nga taxaw ci kon loolu kon war nañ ko cee sant bu wér ndax xam na lii liggéeyam te mosu cee teggi tàngam di ko ñaanal bu baax mu yàgg fi loolu te ànd wér euh, leneen li ci des it rek ma ko ciy dolli defe naa du bari dafay jëm rek ñu xam ne nun teewlu gi ak yar bi ak teggit yi ak kuy ñëw nga déglu ki nga xam ne mooy sa kilifa ci gox ba nga bàyyi ko ngir ngir ngeen xam fan ngeen di dal ndax masalan boo bàyyi koo Cees damay joxe misaal rek ñu jóge foofu ñu ne leen barab sàngam la ñu fàggul ñi nga xam ne ñooy jàng xasida bàyyi koo Cees euh, moo xam muy kuréel wala moo xam njàngum durus lay rafetal liggéey bi mooy nga xam loolu te jubali foofu ñi nga xam ne mooy kuréelu xasida yi nekk Touba rek seenub lim yaatu na taarkaal la loolu tamit bu ñu xamee ne barab sangam lañ leen fàggul loolu yeneen communication ak yeneen euh, waxtaan dina am yoo xam ne mooy topp ci bii te ñi koy war a def mooy ñu yor bànqaasi liggéey yi nga xam ne yii ci wàllu togg la jëm yii ci wàllu njàng mi la jëm yii mi ngi jëm tamit ci wàllu sonorisation ndax nit kuy ñëw te amaale basan wala nga amaale ay rajo wala nga amaale ay ay ay tànt ak i baas boo ko indee day yombal liggéey bi ndax nun suñu suñu liggéey la ay bool itam ku ci indi lu doy day tax bu ñu la bu ñu la yàkkalee da ngay mën a séddale te loolu dina tax dara du sànq ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi it tey tey togg di indi war nañu ku ci ne war naa xam la muy togg fan la koy yóbbu ngir bu ñu ko yóbboo ña koy jël ñu xam ñan lañu su ko defee ñu mën ca ñu mën a fexe ba la tax mu ñu def ko ñu mën caa jëriñu te dara du yàqu lii daal laa ne woon rek naa ko ci euh, dolli di yeesalaat rek sama jaayante ak mboolem koo xamante ne ñoo ngi ànd ci liggéey bi moo xuma rek isbu tarxiya waaye mboolem dong yi ñun ñëpp noo ngi doonaat benn di gën a laxasaayuwaat xam ne muhaajirin ak lansaar rek moo am waaw sunu sang yaa ngi nii ñooy muhaajirin yi ñun ñooy lansaar yi nga xam ne tamit nag noo ànd ak ñoom liggéey bi yal na ànd kooku sax zahiran wa baatinan ba nu làq mu ngërëmal sëñ Tuubaa tey ak ëllëg jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ginnaaw bu nu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, sant sëriñ ñu ngi nuyu bokk yëpp ci turu sëriñ Xamsatu moom sëriñ Soñu ndax di wax ne moom bi mu jotee ndigal ci sëriñ bi loolu day lu rëy ci moom ndax ni mu ko waxee sëriñ bi rek saa su nekk dañuy dàkk mbégam ak bëgg-bëggam waaye nag bu wootee santaane ab liggéey kon loolu tawfeex ju rëy rëy la te it muy liggéey boo xam ne sëriñ bi ñu ngi ko santaanee ak ñu mu ko fonke dafa kawe lool ba lu euh, ci dikkaat sa suñu su wax na ko waaye ñaari kàddu yi mu wax rek nga xam ne day tegtale ak fonkeel wax na ne fu kuréelu xasida xaj rek euh, na na na fa ne wax ab lim bu mu ci barkeeloo ne nag ab tàmbali la waaye bis bi ye euh, maanaam yeyoo na rey ci ay téeméer téeméer nag kon sëriñ xamsatu li nga xamee ni da ko cee euh, barkeeloo ànd ko waa waa ahlu xasida ñëpp xam ne ab soññ la képp ku man ak foo mën a nekk nga xam ne liggéey bi liggéey bi sëriñ bi la teyit lu yaatu yaatu la loolu du ma ci xuus sëriñ Aliou Diop dana ci dikkaat ba mu gën a leer bu baax a baax a baax waaye daal nañu xam ne lii ndigalul sëriñ Tuubaa loo xam ne nii mën nañ cee jariñu àdduna ak alaxira ndax sëriñ bi yitte ju kawe kawe la ci moom kon jàpp naa ne lu ci waay fas te jëf ko ci da ci am loo xam ne nii amee ko ci leneen du yomb jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim barke baram Tuubaa barkeb soxna Aysatu barkeb mbootum xasida yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa mbokki jullit yi mbokki taalibe murid yi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziara te di leen ndokkeel di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi cheikh Mouhamadul Muntaqa tey ñaan suñ borom mu gën ko fee yàggal te gën koo wéral te mu mel ne kenn ci ñun ba mu doyloo baat boobu rek yem ca murit bu ne war ngaa wut dog boo xam ne sa digg ak sa borom rek la nga warloo ko bis bu ne nga wéet ak sa borom def ko def ko muy tawasul sa digg ak moom ngir ñaan sëriñ Muntaxa mu yàgg fi te wér te bañ a yem ci yàlla na fi yàgg te wér kese loolu maa ngi koy soññi sama bopp li ci bokk taalibe yëpp ndax kat ak yàggam fi amal na njariñ kon yàlla na fi gën a yàgg te ko nuyu bu baax te di ko ziyaare te di te di ko kañ moom Cheikh Ahmadoul Muntaxa lii sëriñ Cheikh Mbacke wax ci moom noonu rek la demee sëriñ Muntaxa moom waxuma nga gis jëmmam waxuma nga dégg ay kàddoom waaye sa xel bu demee ci moom doo xalaat lu dul ab murit murit bu mel ni sëñ Tuubaa bëgg murit mel ni mooy sëñ Muntaxa yi ci des yëpp murit gi koo muur yow kay yaay xool ba gisaat loola waaye boo ne sam xel ne càpp sëñ Muntaxa li ngay njëkk a mooy murit saadix bu mel ni sëñ Tuubaa bëgg ku ni mel soo ko xalaat nag doomi sëñ Basiru soo ko xalaat mooy mooy xalifa sëñ Tuubaa soo ko xalaat soo ko xalaat waaye murit la moom sëñ Muntaxa te yàlla lim bind morit la ci gën a bëgg moom la ci gën a fonk te Sëñ Muntaxa doon na ko te yemul ci doon ko waaye ak laabiram yàgg na ci bëgg ñëpp dooni murit moom lay waxee moom lay jëfee kon yàlla fi gën a yàgg koy siyaare bu baax di siyaare mbooleem rakkam yi te di ko teg ci loxool sëriñ Xamsatu Mbàkke mi nga xam ne mooy jëwriñu ahlu xasaayid di rakkam di soppeem di ko xam ne ku ne xam na ne sëriñ bi amul ci moom sago te li ko waral du bokk gi murit gi mu doon moom sëñ Muntaxa te sëñ am sa di murit ñu daje ci loolu yi lay ma waral fonk gi ma waral sopp gi kon sëñ am sa ñu ngi lay siyaar di sëriñ di siyaar sëriñ Moustapha Mouhamadan ak sëriñ Cheikh Mbacke bay fal moom day sëñ am sa nee na ko yaay Cheikh Ibrahim sëriñ Muntaxa waaye loolu yàgg na de moom ku ko xam xam nga ne ci Baye Fall ngoo ko xam te nag Baye Fall gi li tax mu gën a dëgër mooy da koo donn ndax baayam day sunu baay nampatal nu mel na man na wax ne lu nu mel ci sëriñ bi rek sëriñ Abdou Latifa moo nu toqi di koo xam ne sëriñ Abdou Khadir daana ko yéem ci pastéefam daan wax ne man de Abdou Latif damaa xamul fu ma koy teg ndax boo ko dugalee ci sëñ bu sa mu jeex ca tàkk boo ko dugalee ci Cheikh Rafal mu jeex ca takk kooke nag la doon kon Mbàkke jërëjëf eh, di ziar dong yëpp waaye ziar dong yi dañ koy teg ci loxol sëriñ Yuusu Jóob wax naa ko ne ko mbooleem jëwriñ yi ci yoonu murit jëwriñ ju ci ne say moroomi murit te loxool ba nga doy leen ñu la doxal ñu topp ci sa ginnaaw mat nañ ko de ndax murit yi la tànn lu ñu tànn tànnu na waaye sëriñ Yuusu moom daa am feex ndax daa ci tool bi di liggéeyal sëriñ bi di liggéeyal sëriñ bi ba borom Tuubaa ne ko yuusu mu na ko Mbàkke mu ne ko doxal yuusoo ngoog la sëriñ bi wax loolu nag taxawaalu may la ko taxawaalu may ko li li li daal sëñ mun taxa ci fii mu toog moo la daal fi nga toog mosoo koo xalaat mosoo ko yittewoo mosoo ko dox waaye sëriñ bi daa bokk ci ay turam moom buy daal muy dal moom sëñ Tuubaa kon yuusu na sam xel dal ndax gannaaw donc yi ñu tànn képp la sëriñ bi jàppale bañ mën a dem asteeku sëriñ bi tànnal boppam kon waa Hizbut Tarqiyyah lu dul sant te feddliwaat seen laxasaay te topp ci sa ginnaaw waru leen te ci loolu lañ nekk xam naa jataay bi daa xaw a gudd gàtt ba liñ bëgg wax lépp luñ ko mën a wax waaye foofu doy naa yem ñu ñëw ci lii nga xam ne moo nu tax daje la sëriñ bi waxoon ca njaareem ba mu wootee ba ñëpp dama dafa ne li tax ma woo leen day yitte te mooy bis bii nga xam ne ci laa doon liggéey rasulullah sallallahu alayhi saa bu mosaan dikk suñu borom day dolli nattu yi ful ko natt yooyee nag la saa borom xamal ne ma jeex na pay gi itam na nattu yi doon demee ni lay demee mooy at mu day fuya day ful pay gi ma bëgg nag ñu def ko yitte wax ca lam ca wax yëpp foofee sëriñ bi tegoon wooteem boobee rek la mun Muntaxa teg woote bi na murit yëpp xam ne wooteeb sëñ Muntaxa bi yitte la lu ab murit jàppoon bu bis bi jotee na ko ne tegg ci suuf te wuy si sañ Muntaxa Sëñ Abdou Khadre day wax ne lu ay nekk lu mu baax baax bañ na julli jot na loolu baaxatul julli a baax waaye na murit yëpp xam ne lu ab murit nekk loola lu mu baax baax lu mu yitte yitte ba sëñ Muntaxa ne soxla na la la nga nekk baaxatul wuy si sëñ Muntaxa rek war kon na ñëpp wuy si sëriñ am sa nee na mi ngi wow mbooleem kuréeli kuréeli xasida yi képp koo xam ne man nga ñaar ak ñett di daje ci barab di jàng xasida sëriñ Hamza nee na woote bi sa bu wootee rawatina nag ñiy taxawal bisi xasida yi ñooñu ñoom force la ci ñoom waxuma jëwriñ ji waxuma ña topp ci ñoom ku bokk ca kuréel googe rek dañoo war a àndandoo nañ doon def seen kuréel àndandoo ñëw wuy si sëriñ Muntaxa te buñ ñëw loxo yi kese kuréel buy ñëw na nga daan def sa bisub xasida xamal ne moo la moo la moo la war fii moo la war fii kuy ñëw say basang bu mu des say bool bu mu des say nag bu mu des say xar bu mu des say bernde bu mu des na lépp dikk na lépp dikk bis la boo xam ne benn bis la war a doon Sëriñ Muntaxa waxoon na ko ci at yii ci ginnaaw muy daaw waxoon na ne réew mu ne mën naa jaaxle ba mu des réew mu am sëñ Tuubaa loolu nag nun ahlu xasida ñoo ko war a wane tey jaaxle gii lëmbi àdduna lañ bëgg sëriñ bi ne ko seppet sànni ko fu ko fu ko bët dootu tege ci loolu sëñ tubaa man na ko waaye sëñ Muntaxaa day wax ne sëñ tubaa de moom sàgganut fàggu na lépp waaye ñi mel ne man dañuy jàpp ne ku ne da toog sëñ bi indil la sa wàll sëñ bi amul jotug wër di seddale sëriñ bi mu fàggoo lépp da koo teg ci barab kenn ku ne sii teeg sa pastif mooy tax nga jot sa wàll te nag bisu séddale baa ngi nii ku bëgg jot sa wàll waajal ci dikk waajal ci dikk waajal ci dikk bis la boo xam ne ku ko wuute wuute bu ko kenn wuute ku dem ba am ngant ba am ngant ba am ngant na ko sa jëmm wuute waaye sa xol ak sa pasteef bu mu ko wute ak sa alal dag ñii ci biir réew mi ñëw da leen a war ña nekk bitim réew it dikk da leen a war ku ca mënta dikk na nga dikk na ngay dikke mooy ñu mën a daje ci bis boobu nañ daje fañu ne tollale ko ak noonu ñu mënta daje kenn ku ci ne sañ gaa wéet tubaab yi lu ñu mën mën a tere duñ tere ko wéet man ngaa wéet wéetal sëñ Tuubaa ne ci xasida yi te xam ne jullit yi bis bu nañu bokk daje fu ñuy daje mooy ci néegi yàlla yi bu tisbaar jotee ñu dugg ci yàlla jàkk ji jullit yëpp daje nañ ci benn barab ñoom ñëpp ñu nga bayti la maram kon buñ dajee ci xasida yi murit yëpp daje nañu bis boobu la sëriñ bi woote sëriñ am sa bëgg bu nekk bis boo xam ne sëriñ Muntaxa bu génnee ba xool ñu waxu mu ma génn ci saayir di wër waaye sëriñ bi génn xool ñu dara ci moom lu ko yomb la ndax moom sëriñ Muntaxa mi toog na ak sëriñ saaliwu guddi di waxtaan ba mu yàgg sëñ Saalum na tekk ba mu yàgg mu dellu mu ne ko mun Muntaxa sama xel daa nekk sama murid dama nekkal xel ko ma demoon di leen seet waaye ko fa fanaan tey faj naa sa ajo te ñoom ñaar ngi toog te koo kookee mooy kii kon na murid yëpp wàcc dikk te kenn ku ne xam ne sëriñ Muntaxa dana la xool rikk waay ku xool ci ñun na fekk nga ne ca nga ne ca ca mel na mu bëgg nga mel nii ndax kat yàlla day ku sell lu sell rek lay nangu day ko teey lu teey rek lay nangu kon nanu waaj te dikk te bu dikkee defe defal sëñ bi lim bëgg ku ko defal suñ ci noppee suñ borom defal nu lim bëggoon ku ko defal loolu moom lu automatique lay doon kon woote baa ngoog ñu ngi woo bo murit yëpp waxuñu ne waa xasida yi ña ngay woote loolu day suñ tawfeex rek ñu bëgg ñu koo jiñ waaye murit yëpp bokk xasida yi weesu na ko sax jullit yëpp ko bokk ndax sëriñ bi njariñal àdduna ak alaxira la dajale def ko ci xasida yi def ci njariñal jullit yëpp jullit yëpp mën nañ cee jariñu kon liggéey baa ngoog àllarba lay doon sëñ si wax na ko léegi àllarba daa bokk ci bisi sëñ Tuubaa yi àllarba daa bokk ci bisi sëñ moo tax bi ma déggee àllarba ji damaa yéemaat sëñ Muntaxa la xewoon àllarba la xewoon li xewaat àllarba la xewaat àllarba àllarba bi sëñ Tuubaa la kon àllarbaa ngi noonu di ñëw yàlla nañ ci yàlla yeggal ak jàmm te sëriñ bi defal ñu tawféex ba lim bëgg ñu def ko mu def ci ñun manu man koo def ñu defee ko ni mu ko bëggee ba lim bëgg a def ci ñun mu man ko cee def waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillahi rahmaani rahim <coughs> wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi ajmain asalaamualeykum bi ñu ngi lay nuyu ci turu sëriñ Afia mi nga xam ne moo jiite daayira muqaddimatul xidma nuyoo bi nag ñu di ci jiital Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan sun boroom mi nga xam ne dara taw ko mu defal ñu kiimaan ci ak dundam bu raw ga mu defoon ci dunduk yont yàlla Nuux sun boroom mën na ko sañ na ko yàlla na ko def te nu ànd kook moom yàgg nekk ci ginnaaw mu yàgg noo digal nu yàgg koo jëfe nuyoo boobu nag ak siyaara yi ñu ngi koy teg ci loxol sunu kilifa gu tedd gii toog di sëriñ Hamzatu moom sëriñ Sohaybu moom it ñu di ko ñaanal liggéey bii nga xam ne moom la maamam teg ci loxoom ci xasidaam yu tedd yi sunu borom gën koo jàppale gën koo dëgëral ba lépp lu ci yéeneem mu man koo def mbo mbooleem ñi mu ko àndal waaye ak mbooleem murit yépp di nuyu itam sëriñ Yuusufa Jóob mii di teg ci moom loxo bi loxoom nuyoo bokki taalibe bi yépp ni ko ñëpp defee ginnaaw bu loolu jàllee nag dañuy sóobu rek ci liggéey bi daaira muxaddamatul xidma sëriñ bi boole nanu ak yéen sëriñ Yuusu ab liggéey ba tey ñu yàgg koo ànd te lépp yàgg rafet waaye sëriñ bi it yàgg naa santaane ci jumaa ji ay liggéey ñu yàgg koo ànd lépp rafet sëriñ Xamsatu mi itam yàgg na faa ñëw di fa dundal ay guddi xasida ci jumaa ji lépp yàgg rafet kon xëy na dañoo bëgg lu gën a rafet rek waaye rafet moom am na ba noppi ñu bëgg nag kàddu yi ñuy yëkkati ñu jëmee ko ci bokki taalibe yi nga xam ne ñooy jëm si ci jumaa ji nañu bàyyi xel ñett benn bi mooy ndigalul sëriñ Touba moo leen tax a jóg bi ci topp mooy ci bërëbub sëriñ Touba lañ koy defe si dolli ci di néegub yàlla beneen ba ca topp itam mooy aaja ju faju lañ ciy wut si ñett yooyu yëpp nag dara àndu ceeg po dara àndu ceeg caaxaan. nañ bàyyi xel barab bi nga xam ne fi lañ jëm si bu baax a baax a baax a baax ci waggar ko ni ko sëñ Saliou daan waxee ci lépp lu basaan di xew ci jumaa ji dafa daan wax ne nañ njëkk a bàyyi xel cet gi cet gi ndax lislaam dafa fonk ak set sëriñ Tuubaa itam fonk ak cet ba barabam bu mu mas a am ñëpp xam nañ ne xam nañ nam daan mel ci ak cet julli juróom sax julli jum ci daan mas a julli daf koy wutal mbum mu bees moo xam ne dafa jóge ci ci póot set mënut a weesu loolu leneen la cay topp itam mooy ñu sàmmonteeg warma ji may barab bi ci boppam bàyyi xel ne nekkuñu ci mbedd nekkuñu ci sunuy kër nekkuñu ci ay ëtt waaye ñu ngi ci kanamu sëriñ Touba képp koo xam ne jàpp nga ne bu Serigne Touba toogal ne ngay jàkkaarloog moom ci sëbati saayir war ma ja nga ko war a jox boo duggee ci barab bi war ma joojee nga war a jox barab bi te xam ne boo ko gisul it moom mi ngi lay gis kon nañ sàmmonteeg loolu bu baax a baax a baax a baax a baax kuy ñëw nag sëriñ bi joxe na ndigal ne kuy ñëw ci jumaa ji na takk masque gis ngeen jataay bii ñu toog kilifa gii fi nekk wane naw yoon kon nañ diggal lool it ñu ngi koy fàttali bu ñu agsee ci biir jumaa ji itam ñi nekk ci biir di wane barab yi ñi nga xam ne fi lañ war a toog kuñ ne jekkil fii jekkil foofa te xam ne foofa mooy sa barab képp koo xam ne itam defar nga ay xéewal di ko indi ni ñu ko daan defee ci njàngum alxuraan bi rek noonu lañ koy defee waajal nañu ay barab ak ñu fay nekk ñoo xam ne lu fa waay indi teg ko ci seen loxo danañu ko sàmm ba mu àgg fa mu war a àgg te dara du ci yàqu waaye nag bëgguñu kenn di indil boppam di tasaareel boppam di séddale ndax barab ba dafa am lu mu laaj ci ak fagaru ñun ñëpp xam nañ ne barab ba ay karo la te li ëpp ci lii bokki ndaw ku ndaay di jëfandikoo day niin te bu tegoo ci karo yi mën naa indi tarxiis te tarxiis doon wut si leneen leneen dabe ko fa ñaanuñ ko sun boroom yàlla na ci yàlla musal bépp jàmm moo tax ñu bëggoon lu waay andi muy lu ñuy naan mbaa lu ñuy mos mbaa xeeti foyteef yu mu mën a doon na ko yóbbu ca fa ñuy tuddee waañ wa am na barab bu ñuy tuddee waañ boo xam ne ña fa nekk dara du seen yitte lu may dajale loolu ak seet nañ ko war a tasaaree ci mbooloo mi ca fañ ko war a jëfandikoo ñu bàyyi xelit ne bu waxtu jëfandikoo jote it ñëpp dañuy sàkk ñu génn ci yokk jumaa ji ak ëtt bi jëfandikoo fi waaye biir jumaa ji sëriñ bi dafa sàkk woon ñu moytandiku jëfandiku fa loola it mi ngi wéy ba léegi ñuy ñaan itam sëriñ sëñ bii Diop sëñ Aliou Diop mii wax na ko léegi muy kaddu gu bàyyi ko woon Cheikh Abdoul Khadir Mbacke waaye dafa mel ni sëñ Abdoul Khadir daf koo jot li waaye sëñ Touba ko waxoon mooy lépp lu waaye di def ak lu mu baax a baax ba julli jot loola dañuy aj mbaax ga ba julli jàll kon nag lépp lu ñu jàpp itam ba dégg allahu akbar juy nodd ak ku mën a doon na ñëpp maase dal ku war a waajiwaat mu waajiwaat ñi waajiwaatul defar seeni sàppe bañ julli ba sëlmal ñu delluwaat ci liggéey bi nañ ko def ci tisbaar nañ ko def ci takkusaan bu ñu sëlmalee takkusaan ci ni ko sëriñ bi waxee léegi kilifa gi dana ñëw ci biir jumaa ji muy sëriñ xamsatu mi yeewee si mbooloo mi ñuy ñaan nag ñuy ñaan bu boobaa kenn ku nekk na xam ne ndigalam mooy fa mu toogoon doon liggéeyee fa lañ ko war a wàccee na jekk na toog foofa te woyofalal sëriñ bi bu fekkente ne ci biir foofu la ko fekkoon mu yomb ci moom su ko fekkoon ci beneen barab mu war a ñëwit ñëw ga mën a yomb ci moom ndax diggante tisbaar ak takkusaan dafa gàtt lool te diggante boobu bu fekkente ne dañ ko fee war a tëj ci ay bayit sëriñ bi war fee ñaanal mbooloo mi ñu yawi ko te nodd du jotaat loolu nag ñun taalibe yi ñoo war a may sëriñ bi fursa bu mu ko mën a defee loolu daal bëggoon nañ ko jot li bu baax a baax waaye nag maa ngi gën a baamuwaat cet gi nañ ko bàyyi xel bu baax a baax baax a baax a baax kenn ku nekk mbuusug ndox sax ku ko naan boo noppee na ko def sa poos te xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne mu muxuurul xuuri fil janna kanzul masajidi wa imaratuha kon nag te yaakaar naa ne ñooñu nag ku ne soxla na ci koo xam ne nag lañ leen di jote bokk na ca setal jàkka ak dundal jàkka kon ñun ñëpp war nañoo fexe ba bañ faa andi luy taqal rawatina nag ci barabu Cheikhul Khadim bii nga xam ne fi lañ koy defee. ci biir loolu nag ñuy fàttali bokk yi nga xam ne dañuy ñëw ci liggéey bi te ay soxna ni na nga xam ne noonu la sëriñ bi bañee lool ak jaxasoo ci góor ñi ak jigéen ñi. ni ñu koy defee ci njàngum alxuraan bi am na barab yu ñuy fàggul jigéen ñi ku ñëw tey jigéen na dem ca barab boobee fa la ñuy jànge waaye góor ñi dem ci barab yi nga xam ne fa la góor ñi di jànge ndax jaxasoo bi dafa doon lu sëriñ bi bañoon lool te bañ ko lool ci barab bii ba tey kon nag képp kuy ñëw itam na bàyyi xel loolu sëriñ bi mbokk yi dañoo waxoon léegi ne euh, dugg dañoo waxoon léegi dugg ci wenn bayit ñun nag am na bayit woo xam ne nii sax moom la ñu sëriñ bi tànnaloon mooy wal tudxilil musliha fi yi wa fi daari wa sabitanhu bil haadil wa fi waaye tey nag ñu ngi lay waxaat weneen bayit woo xam ne sëriñ bi daf ko waxoon ne ubaayi al yawma ar rasul al mustafa bi xidmatin wa asalullah al waaye ñun nag tey jii ñu ngi lay seeral ni maa ngi koy wax ci turu daaira muqaddamatul xidma gépp ak sëriñ Afiya ak mbooloo mi fi teew yëpp ne ubayiul yawma xadimal mustafa bi xidmatin wa asalullah al wafa wa asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ok jërëjëf euh, sëriñ Abdou Lahat Bousso ci turu daayira Muxaddamatul Xidma kon ñoo dégg ki euh, kilifa yi nga xam ne ñoo fi yëkkati kàddu ci teewaayu sëriñ Hamsatu Mbàkke moom sëriñ bu Mbàkke ni ñu ko waxee nag di ko fàttali muy bisub xasida boo xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbàkke xalif général de murit moo ko digle woote ko ci dëkk bu tedd bii di Touba ñu war koo tàmbali ci jumaa ji ak li ko wër ba mu daj mboolem pénc yëpp loolu nag di doon benn fan walla ñaari fan ci weeru muharam wi ñu jub atum junneeg ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett war a dëppoog incha allah fukki fan ak benn ci weeru wut atum 2021 ñu xam ne kon li ci sëriñ bi wax mooy lépp lu ñu bëgg di ko sàkku di ko ci wut bu ñu ko ci amee bu ñu ko ci fasee dinañ ko ci am moom nag wax na ni lépp loo xamante ni moo ñu jaaxal ba ci yi nga xamante ni moo gën a teew ci suñu kanam muy mbas mii nga xam ne jaaxal na réew mi jaaxal réew yi àddina yëpp bu ñu ko ci fasee sëriñ bi dana ko yóbbu te dootul dellu si nawet bii nga xam ni itam moom la jublu te yaakaar yëpp itam jublu ci nee na bu ñu ko ci fasee suñu borom danañu ko defal mu yaatu tooy te ànd ak xéewal ak jàmm ci ñëpp te loolu mooy li gën a néew ci li nga xam ni xam nañ ne mën na ko ci kon nag li ci am solo mooy niñ ko waxee te kilifa yëpp sàkk ko mooy ñu demee ci yitte ak paspas pas ak façon góorgóorlu ci di ñaan suñu boroom ci barkeb sëriñ Touba mu yóbbu ñu ci ñu àgg ci ak jàmm defee ko ni ko sëriñ bi diglee sàkku ci ngërëmam te am ko ci wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu karimin kaana sakara wa taji minu fi daarayni abkara katabtu sukran lahu ma xaj rajawti bihi كوني سعيدا وسكارا وذكارا وجهت وجهي في سر النبي سندي للأكرم رافع الوهاب سكارا رجوت منه تعالى شكر وعملي ورفع اليوم عني النعم غفارا رجوت أن يمحو الذلات جملتها أني وتذكيره لدار كفارا إني أخاطبه في البر مغتربا ولم يزل جل قهارا وجبارا